nañ fa ci takk der loo xam ne jéggi na dayoo te ñun ñëpp ñu xam ni takk der yooyu la ci ëpp tey lañu jóge ndakaaru ñu mobiliser leen andi leen fii ci département de Mbour ngir suñu tournée bi ñu ñëwee ci Waalo li ñu njëkk a def mooy dem seeti imam imam mu dëkk ba saafonteeg moom teg moom waxtaan ak moom ba ñu jógee foofu ñu dem seeti ñu dem kër làbbe seeti monsieur le curé dem nemmeeku njabootam waaye bi ñu nekkee ci biir salon wu euh, euh, monsieur le curé ca lañu capitaine de gendarmerie bi ak ki toftalu ci moom ñëw fekk ñu ci biir salon nañu daf ñoo soxla ma ne ko capitaine génnal nga dem xaar ci biti ndax li ngay def du teggin ci république bi ñu nekk te yow biir la biir na la ni bari na kër kilifa diina goo xam ne su doon foofu laa nekk sa fit mayu la nga ñëw fekk ma ci biir salon am naan dag maa soxla donc boo ma soxlee demal nga taxaw ci biti ba ma pare li may def bu ma génnee dinaa wax ak yow bi ñu paree génn wéet ak moom mu ne moom dafa am réquisition préfet boo xam ne dañ ko ne man awma sañ-sañ ci li ma li may def ñu ne ko ah war ñu réquisition bi comme dama ànd ak maître Tall te muy avocat te bokk ci département bi ñu laaj ko réquisition bi mu génne réquisition bi won ñu préfet bind ci ni lim leen sant mooy nañu doxal ordre nañ ko rétablir mooy nañu fexe ba am maintien de l'ordre d'abord mooy fexe ba euh, dal ñu fexe ba dal am su loolu amut it nañ ko rétablir rétablir l'ordre mooy su dee dem na ba dal amul nañu delloo ci dal gi ne leen nag loolu mu leen sant mu ngi daw bis ni ki tey nga xam ne moom laa commencé sama tournée bi ba keroog ma koy jeexal incha allah muy le 23 ma ne ko capitaine man lii gis ma lu ko fi jar ndax man gis ma lu fi lu fi de ordre bi ma ñëwee dëggu ci dëkk bi ba léegi imam laa seeti jóge ci imam ñëw seeti euh, monsieur le curé te su ma jógee fii euh, ñu toogal fii xalif général de mourides laay seeti bu ma jógee foofu am na ay mbokk yu nekk fi ma seeti leen bu ci paree dinaa dem fële ca quai de bi ci port ba man gis ma lu fi andi perturbation mu ne ma waaw atroupement dafa am fii ci buntu jàngu bi ma ne ko su attroupement mi man daanaka kenn dégguma ma woo kenn ne ko gid génnal yàllaa def nag ma ne ko yow capitaine su ma ñëwoon seet si la sa kër mun naa ñëw gaare oto dugg man dong waaye balaa may génn attroupement dina am foofu waa koñ bi bu ñu yéegee ni Ousmane Sonko ngi fi ñu bari dinañ génn ñëw taxaw loolu nag yàllaa ko def mënuma ci dara yàllaa ko def te ma ko koy sante ndax du sama mérite man soxlawuma organiser ay film ak ay théâtre ci VDN bi di génn ay nit taxaw pour ñu waxal ma yàllaa ma may loolu su ma génnoon taxaw fii léegi ci buntu kër gi koñ bi fees dell dama koy sante yàlla waaye man woowuma kenn ne ko génnal ma ne ko démb bi may def sama live ndakaar dégg nga bi may wax ak nit ñi nee naa leen ñëw ma meeting ñëw ma campagne électorale defuma karawaan waaye nag su ma duggee cib dëkk waa dëkk ba yépp daje ci pénc bi ne dañ may teeru loolu moom gannaaw yàlla kenn mënu ci dara ñu génnee ci noonu jóge ci kiire bi di dem ci euh, balaa ñuy dem d'ailleurs ci ñi toogal foofu communauté mouride ñi ngi doon jàdd pour seeti euh, dégg nga maam euh, quartier traditionnel Joal bi ñoom ñoo ne woon nañu ñëw seet si leen ci fi nga xam ne mooy fi ñuy daje def grand place yooyu sax yi ci bëri gis ngeen ko ci live bi ñu dem foofu nuyonteeg ñoom gis lu toll lu kenn xamul ci ay alkaati ci biir dëkk bi seeni camion seeni pick-up lu nekk ñu jëlee ko ndakaaru andi waaye bi ñu génnee foofu ba dem ci troisième étape bi wala quatrième étape bi dugg ci biir jumaa ji di nuyonteeg kilifa ya ca lañu commencé ñoom di sànni ay lacrymogène ci biti muy lu ñaawa ñaawa ñaaw ñu génn continuer tuuti ndax dama am goro gu dëkk foofu ci kaw tali bi mu wàcc dugg di nuyu samay goro ñu commencé di sànni lacrymogène ni ci buntu kër ga lii nag niñ koy tuddee mooy intimidation la ko ñëpp tuddee waaye man jàpp ma ni intimidation la li ma jàpp mooy ki leen yebal ñoom ñëpp muy président Macky Sall tiit na tiitaange goo xam ne jaaxle na jaaxle goo xam ne ñàkk naa gëm yàlla ñàkk gëm goo xam ne parce que lu jeex jeex na loolu yàlla bi ko yàlla tuddee ni moom moom la yàlla dafa koo yombalal yépp waaye bu yàlla tuddee ni jeex na màndarga yi day feeñ ne fang waaye moom ñàkk gëma di yàlla gi mu ñàkk gëm yàlla moo tax mu jàpp ni war naa mën a forcer mbir ba jàpp na ni Ousmane Sonko warul yëngatu ci réew mi seen stratégie ñoom mooy fexe ba kuy politique rek na nga toog ndakaaru bés bu ne ñu dugal la ci ay débat yu ñàkk fulla yu amul solo ñu jël ko amplifier ko par voie ñu bàyyi li nga xam ne mooy fulla Sénégal nekk ci débat yoo xam ne am diw andil diw diw wax na lii diw fornalale diw saaga na kii noonu nag la ñuy piéger homme politique yi ba ñu bàyyi farata gi farata gi kuy kuy homme politique fi mu toll nii mooy dem dajeek askan wi rawatina nag ñun ñi nga xam ne biir nañu boo ubbee xolu sénégalais yi ñoo ngi ci biir fu ñu génn sénégalais woon ñu cofeel ak mbëggeel waaye surtout yaakaar bu ñu am ci ñun ak la ñuy liggéey moo tax piège boobu bulle boobu nga xam ne dañ koy alimenter jaarale ko ci waxu média réseau sociaux ñun dañ koo yëkkati teg ko fële dellu si ci réalité bi te réalité bi mooy feeñu jóge ci àll ba fekk fa sénégalais yi saafonteeg ñoom ñu wax ñu seeni jafe-jafe ci suuf suñuy jaay seeni jafe-jafe ci ñàkk liggéey seeni jafe-jafe ci seeni pajukaay seeni école seeni jafe-jafe ci seen ji seen seen seen seen récolte yi nga xam ne jaaxle nañ ndax dinañ ko mun a jaay am déet loolu mooy réalité seen